baabu ngi ab bunt la fi salaama ci nuyoo wal istizaani ak diisoo wa tanaaji wal qiraati ak jàng alquran wa duxaay ak ñaan wa zikrillaay tudd yàlla wal xawli ak wax fi safari ci tukki daa bëgg a wax ci bunt yi mbiram nuyoo ak diisoo mooy bala ngaa dugg ci néegu jaamur yëg lu njëkk ak déeyaale ak jàng alquran ak ñaan ak tudd yàlla ak li nga wax boo dee tukki wa raddu salaami delloo nuyoo maanaam fay ab nuyoo waajibin aji war la waru kifaaya wa ibtidaawu jëkkee ga bi ci nuyoo bi sunnatu sunna la mu raxabin ci bisin xamam la fiihaa ca moom maanaam jékki-jékki njëkk nuyu nit sunna la bu nga xasee nuyu nag moom nga war a fay kooku moom fardu kifaaya la waaye nag nee nañ foofu mu nekk sunna si mooy tuyaaba farata ji xam ne fay ji farata la mais fardu kifaaya mu njëkk génne suñu waaye suñu si moom moo ëpp lu tuyaaba ndax nee nañ boo nee asalaamaaleykum naa di soo waxee ñu daal lay bindal fukki yow boo nee asalaamaaleykum wa rahmatullahi boole ci wa rahmatullahi ñu bindal la ñaar fukki yow boo nee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu bindal la fanweeri yow wasalaam mun yow nag ay yàqoolu mooy boo waxee arrajul waa ji ne asalaamu aleykum asalaamu jàmm yàlla aleykum wala nekk ci yéen loolu mooy ñëw dëgg-dëgg ci islam yëkk-yëkk yaa ci santam rek mu nekk bi wolof mbaa yooyu loolu boo ko defee doon nuyoo nuyoo aada rek la da ngay njëkk a wax asalaamaaleykum ba noppi nag booru yaa ci tëw kooka xam ne boole nga def na lislaam boobu def na it lii xam nga sedd xolub kooka bu yàqoo te wax arrabbu aji dalloo ja mbaa mu ne aji fay ja ne waaleykum salaam waaleykum wala nekk ci yéen it asalaam jàmm maanaam boo dee fay kilo yi da nga wax waaleykum salaam am yàqoole wala mu wax ne salaamun aleykum kama xiira ni ki waxee si loxo ñaan ko xanaa boo dee fay boo nee wax aleykum salaam moo gën waaye boo nee salaamun aleykum bañ koo taara mu baax boo nee asalaamu aleykum loolu it na ko kooku waxee woon taara ko it ba tey mu baax waaye ko xëy na bañ jaa bari la nga xam ne yéen tax la dana ci woon asalaamu nuyoo ba ibi barakati jëm na ci baatu baraka an taqula te mooy nga wax fi rabbika ci sag fay mooy suñ delloo ne waaleykum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh yow boo dee fay am nuyoo nag boo ci xir xir xir waaye soo ci baatu bi barakaatu buñ ca delluwaat dara waaw xam daal bu ko ko yóbbee ci asalaamaaleykum doo ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah rek kon wax nga ko lépp lam la waxoon mooy lu baax bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yow nga wax kon waaleykum salaam wa rahmatullah jàll ci barakaatu bu jotee jekk wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nag boo ko waxee foofu ba nga mën a yem boo ko jëlee yokkal la ne ndax bàyyi lu loo ko bàyyi lu loo ko mën a yokkal wala taqul bul wax fi dëkk ci sa fay kon sa delloo salaamullahi alayka bu la kenn nuyoo boo ko defee bul ko wax salaamullahi alayka ndax kat loolu ñun wax dëgg yàlla gisuñu fenn fu mu fu mu rek dëkk ci addis ba dara fi mu ko mën a sukkandikoo wa ida sallama ndem nuyoo na waahidun kenn min al jamaati ci mbooloo ma aji fa akon leen xam xam ci mbooloo ma wa kazalika naka noonu in radda ndem fay na waahidun kenn min hum ci mbooloo mi maanaam mbooloo bi ci kenn nuyoo rek baax na su fekkee ne itam mbooloo mi nuyoo kenn rek fay na leen itam mu daal di baax wa yusallim na nuyu arraakib aji war ja alal maashi ci aji dox wal maashi aji dox na nuyu alal jaalis ci aji toog ñu taamu nañ bu fekkee da ngaa war nga fexe ba njëkk nuyu kii doxul tànkam ndax war gi day nuru daraja su wax yi waxee ba moom mu nuyu la nag moom mooy dox lu gën te te yow mi nga xam ne yaa dox dañoo fekk ci toog ñu tànn nga farlu njëkk koo nuyu moom mi toog waaye boo yeexee ba moom mi toogoon njëkk nuyu la ba tey kon loolu lu gën wala mu saafixatu saafixante xafanatin aji rafet la saafixante mooy joxante la ko nga jàpp loxo mu jàpp si loxo bu dëgër ñu ko defante yaar loxo yi sax lay gën am sopp nañ ko wa kariha sib na maaliku maalik almuhanaqata boqonte maanaam tegantey boq tegantey loos ni ko naari tubaab yi defee ndax xam daa mel ni sax sax na ni ci addis waaye teew maalik moom da koo sib moo tax mu ne wa ajaasaha daganal na ko ibnu xuyeynata ibnu xuyeynata ibnu xuyeynata moom daganal na ko ndax dañoo wax ne lima warada anna nabiya xaanaqa jaafaran xiina qadima min ardil xabasha wa qabbalahu bayna aynayhi nee na yonte bi da Jaxfar bàyyi ko Xabasa Éthiopie njëkk yonte bi da ko boqonteeg moom fan diggante ñaari bëtam mooy la ñuy ndiko si wax ne loolu yonte bi da ko jagleel rek jaxfar waaye du loo xam ne ko yoonal ñëpp di ko def wa innama tarifaha malikun li fahmihi alqususiyata wa tarifa simna malikun malik taqdir yadi fent ab loxo maanaam ñu kenn fent ab loxoom la wax ne malik sib na ko wa an karatahu weddi maa la nga xam ne boobu net leef na ko fii ci moom maa lañ ca net li ci addis moom malik da koo weddi waaye faraa bi day wax ne walakin al xamala xalaa nadd bi taqbili yadi kulli fi fadlin ittibaahu li waalidi wa kazalika yadu waalidi lima fi zalika min siyaadati birri waaye ne li gën daal mooy képp koo xam borom gënal la ni ci ab sëriñ wala borom xam-xam la gën mooy boo ko doon mu ngi seen loxoom ndax topp addis yoo ci wér te maali moo weddi ko ba tey bu dee sa waajur mën nga ko nuyu boo ko nuyu nga seen loxoom ndax li war sa digganteeg moom ci yell ci topp yooyu ba tey bu seen loxoom bu mën koo wone mën koo feddale kon buñ ne sib nañ fóon loxo kenn boo ko doon nuyu sottee nañ ci bu ko xoolee sëriñ maanaam ku ñu màggal ci yoonu yàlla mbaa muy sa waajur mbaa muy kalay jàng kalay jàngal li taalibe def na loolu lañ ci jublu mooy cosaan li duñ leen ci sujjóot bokkut ak sujjóot bi nga xam ne moo waay wala tut ko daw jëful jëkki al yahud yahud ya wan nasara ak nasaraan yi bi salaami ci nuyoo maanaam ab yahud mbaa nasaraan boo ko gisee bu jëkki-jëkki wax ko asalaamaaleykum bët njëkk nuyu kenn ci yahut mbaa nasaraan maanaam sib na nga njëkk ci nuyu kenn daal fa man sallama ku nuyu xalaa junni min ci ko jëfe sa loolu rek falaa yastaqiluhu kon du ko xàcclu si nuyu mooy koo xam ne dana fa sa ngolu rek bàyyi ko ci diine mu nekk ci sut ci ñun ci suñu biir jullit ñi kooku mu nee na fekkee xas nga ku nuyu bu jar nga naa ko damaa def woon ne ab jullit nga waaye kon dugal nuyu loolu mooy loolu la ko xàcc nuyu bi nga ko wax loolu jëru ko وإن سلم دمون عليه تمام اليهودي اليهود أو النصراني ولا النصران فليقل نوحني عليك أمن maanaam bu fekkee ne ab yahud ba nasaraan bi laa wuyu da laa nuyu maanaam bu la yahud ba nasaraan nuyu da nga yem ci xalayka kese bañ caa boole waaw di wax wax waxalayka wala waxalaykum déedéet yaa ngi rek ci xalayka dama wax ne yahud ak nasaraan bu nga saat ñu julit seen dëng boobu ak seen noonoo bi day tax dañ koy wax assaamu alaykum saam yi fi dee dañ wax assalaa assaamu yow li mooy almaytu rek lañ koy wax assalaamu aleykum te nga ne ko waxalee ko rek na nekk ci yow te bu nekk ci man kay oman kaala oman xaala ku wax ne xaleyka yow li nekk ci yow assilaamu ay doj bu kasra siin ci kasra siin sa wa hiya te moom silaam al hijaaratu mooy ay doj fa xat ci kon wax gis na daalika loolee mu ne ba tey nee nañu bu la joxoot wala nasaraan nuyoo nga ne ko xaleyka silaamu kasara siin si am yaa war bu xëpp lay daj ba tey loolu mu wax baax na kon noonu baax na wal istizaanu wal istizaanu diisoo waajibun aji war la falaa tadxulu boo dugg doo sañ a dugg baytan am nekk fii bu nekk na ci ahadun kenn xataa tastazina ba la diisoo falaa sa ñetti yoon fa in udina doon digaleef na lakk ñeel la kon baax na wa illaa doon ma wëf la ndigal rajaata nga dellu dana néegub jàmbur moom bu jekki-jekki dugg ca te dangaa wëf lu bañ la jàll si da nga nuyoo baa nga fëgg baa nga sëkkat ba nga xam ne bëgg ngaa jàll si su ko defee nag ñu ne jàll si baax na bu wóore ni dégg nañ la waaye wax ñu la jàll si soo doon ni ko waaye sama dugg bu dee foo xam ne ku wax suñu dugg nag ñu fi ñëpp fa nekk mel ni bitig bi ñu jaayee wala suñu defee noonu mën ngaa jékki-jékki dugg moom du aajoo loolu waaye doo xaw bi def na xëy nañ loo fi iyaadati marda ci seeti way tawal ñu wax ñu yëg yëg mooy baatu wolof bi maanaam bokk na ci lu bari tuyaaba lool ku tawat nga dem seeti ko ngir yàlla walaay te naajaa bu déewaale it naa ni ñaar bu na waaxin ci lu kenn maanaam araam na ñaar bu déewaale bàyyi kenn dong bu fekkee ne kenn ko dana njort ne dañ ko bëgg a war dañ ko bëgg a fexeel su boobaa loolu dana araam ñaar ñu déewante bàyyi ko moom kenn wa kazalika naka noonu janaaxatu mbooloo ida abba xaw dem defal nañu waaxidan kenn mun xam ci ñoom ba tey mbooloo di diisoo bàyyi kenn rek xam nga kooku day ñaar njot ne kon moom lañu comprimé di ko fexeel ba tey kon nee nañu dana araam waaye bu fekkoon ne mbooloo day diisoo bàyyi ñaar nag kon nee moom mu baax looy وقد قيل وحسن لا ينتهي بيل ذلك لولا إلا بإذنه بيت بغلم am nañu ne ñaar ñi diwaale bàyyi kenn wala mbooloo diwaale bàyyi kenn bu fekkee ne kenn kaa leen ci may ndigal ñu baax na mën nga ñëw waxtaan kon nay du aay am ñu ko tënk ci loolu wa zikrul hijrati tubb ak tong xat taqaddama jiitu woon na fi baabin ci ab bunt xabla xaw saa ci njëkk bi nee na jekki-jekki jàmm kenn doo ko tudd doo ko faale doo ko taas wax nañ ko ca gannaaw wax nañ bu dee sa digganteeg moom ngir àdduna kese mu wees ñetti fan wax nañ ne bu dee yëfi yàlla la maanaam la nga koy jàmboo yàlla tax moom mën naa wàllu loolu lépp leeral nañ ko ci gannaaw bu dee ci tudd yàlla xaala wax na muhaajib ni jabalin muhaajib ni jabal ne maa xamala jëfit aadama yi yéen doomi aadama xamalan jëf am jaabu gën a musal lu mu ñëw ko min azabillah ci doomu yàlla min zikrillah ci tudd yàlla muhaajib ni jabal nee na jëpp jëf doomi aadama jëf rek nga xam ne na ko tudd yàlla di musala ci mbugalum yàlla daal jenn jëf di ko mën a musala ci mbugalum yàlla noonu amut maanaam daal ci gàttal tudd yàlla ni mën a musala jaam ci mbugalum yàlla leneen ci jëf yi mënu ko waxaale wax na xomar xomar ne afdalu li gën min zikrillaa ci tudd yàlla bi lisaani ci làmmiñ zikrillaahi mooy tudd yàlla inda amri yi sa ndiwalam wan yi akuk tere xomar dafa wax ne tudd yàlla ci làmmiñ ne baax na waaye tudd yàlla gën de mooy bàyyi sa xel yàlla ba nga xam ne bu yàlla diglee nga fàttaliku ko te jëfe ndigal la bu yàlla teree nga fàttaliku ko te day tere ga wa min duhaa rasulillahi bokk na ci ñaan warante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kullama asbaha saa yu musaa xëy am saa ak saa yu musaa gont ni allahu la buur bi bëgg ci yow musbihu la ñuy xëyee wa bëgg ci yow mun si la ñuy konte wa bëgg te ci yow naxyaa la ñuy dunde wa bëgg te ci yow namuutu la ñuy faatoo ويقول تبي وقت الصباح تسلم نوى إليك تجمل تجو المشير دكبة وفي المساء تنغان قم نوى إليك تجمل تجو المشير ملكة dañu bokk na ci ñaan yorante bi suba ngoon daal ko def ñaan bi mu jonn jëwaay la ko daanal rek moom moo wuute bu dee suba bu ne allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nahya wa bika nawéeru da ko daanal wa ilayka nushuru xam nga suba bu ñëpp xëyee dañu xëy dem seen liggéey ak seen soxla kon dañu ronteeg bu nit ñi dekkee ba génn ci seen bànneel dem fañ leen defal ñu seen jëf su dee ngoon gi nag moom day wax ñaan gi ba ci wala bi ko nenee taw ko daane la ëllëg kal masir nga xam ne nit ñi bu ngoonee day ñibbi si ci seen i kër tër si loolu la kon daan ron teeg nit ñi bu ñu faatoo dem na tëree ci seen i bàmmeel waroon yoo ñett leef na maxa zalika ànd ak loolu اللهم يبول اجعل يلنا نوف من أعظم عبادك مبوك تجن جامع يسي جامع هندك فهو حظاً تأبجر ونصيباً أكيبجر في كل خير تيبه تقسيمه ولنكو سلني في هذا اليوم تيبنيس وفيما أكيبس بوحمنا بحنا ونك نتبنوان من نور تلار تهديه دنگا جبلي به تيان أو أحمد من يرماني تمشي لهذا دنكو تساري أو رزق من يرسك تبسطه دنكو تالا أو دنو ولا لر تقسيمه دنكو لنجي aw zambin wala bakkaar taw fi réew dang ko jégle aw siddat ni wala tartar te dafa maa bu dang ko diñ aw fittat ni wala fitna tasrifiha bi dang ko wëlbati aw muaafaat ni wala ak jàmmale tamul ak da nga xéewle bi ci moom bi rahmatika ci seen wéne innaka naka yow xabiran aji atam nga xala kulli seen ci mépp mbir mu ne wax ne ne ñaan googu yoo xam ne bu subaa dañ koy xëy ñaan am na wax ne boo waxee loolee ni allah yow di ko musbihu jooy yow wax ba tey nett la nga boole ci lii tàmbali allahuma ci xam ne min aazami ibaadika ba ci xadiiram jële te loolu mooy su borom maa ngi lay ñaan de yi may bëgg a tudd loo ci seetlu rek naa ci ëppale ab cër mais naa ci bokk ña ci ëppale moo xam tey nga koy seetlu mbaa ëllëg bu doon leer koy bindee kenn mbaa wër mën a jooy tasaare mbaa wër sa jooy tàllal mbaa lor jooy wind wala bàkkaar booy jéggale wala tartar booy fekk wala fitna jooy wëlbati mu dem wala jàmmale booy xëyale yépp daal naa ci ëppale mbaa naa bokk ci ñi ci ëppale wala dama ay bokk na ci ñaanam alayhi salaam hinda naa mu fa na ma tëdd nelaw ni ànd fa naka moom kaan nekkoon wadaxu di teg yedda foo loxoom alim naa bay ndeyjoor taxta xam bi ci ron laxam al ayman bay ndeyjoor wala misra ma teg loxoom càmmoñ bi xalaa sax yi ci kaw luppam al ay sari bay càmmoñ suñu yàqul topp dana wax lii bokk na ci ñëwante bi daan léemee bu dee tëdd bu dee tëdd wetu ndeyjooram bu ko defee loxub ndeyjooram mu teg ko ci ron loxub ndeyjooram loxub càmmoñam mu teg ko ci kaw lupp càmmoñam daal wax na ñaan gi ni allahuma yow buur bi bismika ci say tur wa doxtu laa tërale jëm bi sama wet gi wa bismika te ci say tur arfa laa ko yëkkatee allahu yow góor gi in am sakta ndem jàpp nga nafsi sama bakkan fax fi yal na nga jéggal la xaajal ko wa in arsaltaha ndem béyal nga ko fax fi xaajal na nga ko wattoo bi maa ci la nga xam ne tax faju da nga wattoo bi ci moom ak saalihina yu baax ñi bi ibaadi ko ci say jaar suñ borom maa ngi tële tële sa wet ci say tur mooy ci sa mbaax ak sa sa wattoog sa ngëneel te xam naa ne yaa ma yëkkati itam wala yaa ma tëral yaa ma yëkkati sa kàttan laay tëdd laay yëg laay jógee bu fekkee nag boole nga sab dogal mu faatu ci ni ma tëdd rek xam ne amaa far di génn àdduna kon nag ma jégal bu fekkee ne itam yoo nga ma mooy yëkkatee nga ma ci ñaaw it yal na ma sàmm ci ni nga xam ne moom lay sàmmee sa jaam yu baax yi allah bu góor bi indi nag man aslam te jébbal naa nafsi sama bopp ila ko jëm yow wa al jëtu te wóor naa bëfri sama gannaaw ila ko jëm ci yow wa fa wadd tu te féetali naa am ri sama mbir ila ko jëm ci yow wa wajjahtu te jubali naa wacc si sama jëmm ila ko jëm ci yow rafetan ngir ragal min ko ci yow wa rafetan aku xemman ila ko jëm ci yow laa man jaabir benn muccukaay wala man jaa te benn wóorukaay min ko ci yow illa ila ko bay jëm ci yow astaghfiruka maa ngi sàkku sa njëgal wa atuubu te maa ngi tuub ilayka jëm ci yow amantu gëm naa bi kitaab bi ci sa téere bi ëllëf yi di nga xam ne anzalta wàcce nga ko wa bi nabiyika ak sa yonante bi ëllëf yi di nga xam ne arsalta yónni nga ko sax fi yal na nga jégal lii ñeel na maa la nga xam ne qaddamtu jiital naa ko ci ma woo maag la nga xam ne axartu yeexe naa ko ci topp woo maag la nga xam ne asrawtu nëbb naa ko ci ma woo maag la nga xam ne alantu feeñ naa ko ci may ante ilaahi yaay sama borom laa ilaha amul benn buur illaa anta dara yow rabbi yow sama borom xim yal na ma fegal xafaadaka sa mbugal yow ma tabaxal sa ci bis ba ngay dekkal xibaaraka say jaar nee na ñaan bi mu wax ci booree tëdd ba tey moo jeexagut ñu jàll ne ko suñu borom nga xam ne jébbal saa bopp di wéeru ci sama gannaaw ci yow maa di wéeru saa gannaaw ci yow maa di wéeru ci yow rek di féetal saa mbir yëpp di la dimbali sama lépp dama la jëlee yaakaar yow ma toogal yaa ma ta yaakaar kuy daw yow lay wut si kuy daw yow lay daw kuy wut si kuy làqut yow lay làqut si ndax yow lépp lépp ci yow la bàyyi ko ci yow lay dellu moom sàkku suñu bëggal di lépp mbël gëm naa alquran bi nga wàccee gëm naa soyante bi nga yónni kon yàlla na jéggal lépp li nga xam ne dama naa ko ci bakkaar muy la ma jiital muy la ma mujjee ñu ne ma nubbi mu la ma feeñal ah yow la ma fegal sa mbugal ci bis boobee ngay dekkal sa jaam yi taxawal leen leen fay waaw man maa bokk ci li nga xam ne réewee nat def na ko fi duxaay ci ñaan ndox loolu fa génn mel man si ci kër ga allahuma wa boobu indi naka man awadu naa musli bi ko ci yow an abdulla mooy réer aw udalla wala def na réeral aw azilla wala mooy tarxiis ba wàcc dëgg aw uzalla wala def na tarxiisal aw adlima wala may tooñ kenn aw udlam wala def ma tooñ aw aj xara wala def réere xaala yi tuddal ci sama kaw nee na bokk na ci li nga xam ne boo dee génn sa kër ñu sopp nga wax ko ñaan ko mooy suñu borom maa ngi ñuy génn waaye musal ma ba ma bañ a sànq kenn dal maa sànq ma bañ a wàcc dëgg kenn dal ma ko wàccee ma bañ a tooñ kenn kenn dal maa tooñ ma bañ a umbile kenn dalal ci kawam kenn dal maa umbile dalal ci sama kaw yooyu nett leef na ci biduri kulli salaatin ci gannaaw gépp julli ay sabiha musabbaal allah yàlla talaata ñett wa talaafina fanweer wa yukabbira tamit kabbar allah yàlla talaata ñett wa talaafina fanweer wa yaxmada tamit sant allah yàlla talaata ñett wa talaafina fanweer wa yaxtima tamit mottali almiata téeméer ba bi ci wax ne laa ilaha amul benn buur illallah nduru yàlla wax dafa moom rek laa sharika amul jenn aji bokkaale lahu ñeel yàlla lahu ñeel yàlla amul ko nguur ga wala lahu te ñeel na ko alhamdu cant ga allahu akbar fa wéeru wet daal koy mataloo téeméer bi laa ilaha illallah ba ci xadiran ndax yetti yoon fan wara yett téeméer manque benn lay doon kon nag boo waxee laa ilaha illallah mu daal doon téeméer su ko defee ne bëgg na na nga fexe ba lim mat boo dee sikki sàkka kon na nga ko mat li mu wóor ne nattabletoo ni mat na waaye nag bu la wóoree ne mat na itam ñu sib nga yokk ko nga teg ci lu lu ko yëpp waxindal xalaay sopp nañ fa wana wa waxindal xalaay fa wana wa taqul nga wax ne alhamdu xeeti cant lillahi ji sax na ñeel yàlla am fi yàlla mi nga xam ne rasaq ni warsugale na ma labbatahu bànneexab ñoom bi wa axrajata mu génne xam ne yëris ma mashaqatahu toonaam ba wa abqaata mu defal fii gis mi ci sama waram quwwatahu kàttanam nga xanam saa yu génne ci wana wa sopp nañ mu sant yàlla ne sant naa yàlla mi nga xam ne bàyyi lekk nii may na ma neex ba mu demee ba rees la ci lépp coono mu génneel ma ko ba noppi jafe gi ci am solo muy mbir gi doole ji mu bàyyi ko ci man xis yi andi woon nag te ñun ko loon mooy alhamdulilah ma fi adhaba xañil ada waxaafaani am nañ ci doole waxaafaani muy balaa boobu nag defe naa mën ngeen sant ci xis yi sax bu lépp jàng xis yi wa tataxaye bi ba nga muslimin kun seen ci lépp mbir taxaafuhu moom na nga ko ragal waxindama taxillu ak saa yoo wàcc bi may dixin ci béréb ay tajlis wala ngay toog bi makaan ci béréb ay tanaan wala ngay nelaw fii ci béréb taqul da nga wax lii nee na ñu lay bëgg a wax kat dañuy gàtt gàtt ak léegi la ak mos lëggu màgg màgg te loolu mooy saa yoo ragalee dara lu mën di doon ak fépp fooy bëgg a wàcc te xaw xaal nga fay ragal mbaa fépp fooy bëgg a toog mbaa fépp fooy bëgg a tëdd te am nga fay ragal rek waxal mos liggéey muslu bi mooy aawuzu danaa muslu bi kalimaatillahi ci baati yàlla yi ak taammaati jëlee mat muy sharima ci ay lépp loo xam ne xalaqa bind na ko man naka la toll aawuzu bi kalimaatillahi taammaati muy sharima xalaq ñetti yoon daal des na ko muslu lépp loo xam ne rek la dëgg muslu la am nañu ne boo dee tukki di wàcc wax ko ba keroog nga jógee foofee dañu lay sàmm incha allahu dara la jot wa min at-tahawudi bokk na ci muslu bokk na ci léemu an taqoo nga wax ne ahawdi danga muslu boo ci illah ci jëm yàlla ji ak kalima bi aji tedd wa bi kalimaati llahi ak ci baati yàlla yi ak taammaati réew mat allati yi nga xam ne laa yujaawisuhunna di leen jéggi barun aji baax wala faajirin du caa yoon ab saay saay wa bi asmaa'illahi ak tur yàlla yi alxusna yi doo rafet kulliha boole seen ma alimtu la nga xam min haa ci ñoom wana ak la nga xam ne la aalam xaw ma ko min chari naa ci aw lépp loo xam ne xalaqa bind na ko wa baraa te ma bind ko wa baraa te ma bind ko ñett yooyu ñoo bokk wa min chari naa ak aw lépp loo xam ne yéen si yéen si dina wàcc dina sama bàyyi ko asamaan wa min chari naa ak aw lépp loo xam ne yaamul dana yaamul dana yéeg fii haa ci asamaan wa min chari naa ak aw lépp loo xam ne dara bind na ko yow wàllu fi àll ci suuf wa min chari naa ak aw lépp loo xam ne يخرج من الجنة من هاج سوف ومن فتنة الليل أكتي فتنة قبي والنهار أبجك ومن طوارق الليل أكتي ورنان قبي والنهار أبجك إلا طارقا لو أجرنان يطرق قلن رنان بخير أقمو يا رحمن يا يعلم برين يومانه بطلع بكنا تمي لونو وحيني تنخوي بدو موي باتي الله يمتي باتي القرآني yi nga xam ne dara mën leen a jéggi ci lay ñaan yàlla musulma ba tey ak ci turam rafet yi nga xam ne yéen ñi laa xam yéen ñi xaw ma leen yéen laay ñaan yàlla mu musulma ci ay lépp lu mu sàkk musulma ci ay lépp lu wàcc bàyyi ko ci asamaan ak ay lépp lu yëg ci asamaan ak ay lépp lu yàlla bind ci suuf ak ay lépp lu bàyyi ko ci suuf ak lépp lu fitna guddee bëccëg ak lépp lu ñëw di bette nga war a ñaan mu guddi mbaa bëccëg lu rek lu ñëw te ànd ak ànd ku ñëw ku baax loolu rek lay li ñëw waaye liggéey la moom dama ci yàlla musal wa waqaal def na wax fi zalika ci loolu ayoon ba tey ne wa min charri kulli daabatin ak ci ayoon jëpp daaba rab yi joo xam ne sama borom aaxitul ma ak jàpp bi naasiyatihaa ci candaanam nga wala bi naasiyatihaa ci kaw rëddubam nga xam nga ko yow jub boo ci ñëwee boo ci xasee jàpp da nga jàpp kooku foo ko jëmale mu jëmt la li jublu rek mooy boo xeelee am nañ cay dolli wa min charri kulli daabatin rabbi aaxisun bi naasiyatiha mooy wala yàlla musal ci ayu lépp lu dukkut lépp lu dox fi suuf loo xam ne xam naa ne saa borom moo koy yombat fu mu ko jëmale mu jëm fa yu mel rek mu jàpp ci aw jubbam mooy suñu borom ak yore mbiram rek dama rabbi naka sama borom xalaa siraati nekk na ci aw yoon mustaqim yi ak jub mooy sama borom ku maandu la ba àgg ci day taw maandu wa yustahabu def na sopp li nga ñëw koo xam doxal bu gën a mel si la këram yaqoolam wax ne macha macha lu soob allahu yàlla dal di am laa quwwata du benn xeetu kàttan illa billahi dama mu nekk ci yàlla nee na bëgg nañ boo duggee sa kër wala sa bitik wala sa tool nga ne macha allahu laa quwwata illa billahi neen ci na abu fa waxee lépp loo am loo xam ne sa xol sedd na ca boo waxee loolu ne macha allah laa quwwata illa billahi doo ci gis lu naqar yi wa yukrahu def na sib alhamdulillah liggéey fi masaajid ci jàkk yi min xiyaapatin ci ñaaw wa naxwiha ak ñëw ñoom daana toog ci jàkk di ca liggéey liggéey boo xam du ko salteel du ko xatal naan du yàqal dara ci julli sib dong lay doon waaye bu fekkoon ne liggéey bi day sobeel jàkk ji mbaa day xatal këkk dafa julli moom mu daal di araam waaye mel na nag jàkk nga toog fa di bind nii ñu demee noonu nga xam ne moom daal xataloo yàqaloo dara ci julli te it amul solo su cay taq foofu amul sib rek lay doon dañ ko war a fajal wala wax sama di raxas ya day ñaari loxoom fii ci jàkka bu ne doo raxas say loxo ci biir jàkk dañuy seet bu fekkee say loxo daa set nga raxas ko ci biir jàkk si dong lay doon waaye bu fekkoon ne say loxo dafa taq sawe moom nga raxas ko ci biir jàkk waraam lay doon wala yokkalu du lekk fii ci jàkka illaa mis la chey dara kem dara alxafiif li ajowof te say xi ni ki suusal wa nax yi am rongoom li mu jàkk boo fa dee lekk dangay lekk loo xam ne ni dafa ruus dafa taqal dara mu nga miskit wala gerte wala yooyu nga xam dafa taqal dara dara boo fa saña lekk dara leneen wala yaqusu bu jëm fii ci jàkka saari bi ay naanoom wala waqallimu bu lewee fii ci moom ak bu faaru ay waxam foofu nag ñu moom dafa ñu moom yi andee dafa wuute da da am ñu teg ñu ne bu lewee da ci teg wa in arabahu ak doonte tiimale na ko fi xëy bi fii ci malaanam waaw bu noonu lay def yenn yoon yi wax ne bu koy def na ko tiimale ci malaanam mel na kon mën na koo def waaye kon na ko tiimale ci malaanam defe naa yooyu ngeen yor lu mu def foofu wa in qassa aw qallama axada boobu fay bi waaw loolu yenn noonu la ñu def ñenn ñu wane ne mën nga koo jàmp baa nga lay ci jàpp waaye kon na nga ko tiimale ci sa mbubb ba muy tuuru waaye loolu te wóorut ndax amaana mu far rott doo ko yëg kon li moom bu indi lu bari ci lañ am mooy bu jàkk boo fa toogee doo fa jëmp ay moustache doo fa layu ko bàyyi demee noonu boo ko doon tiimale ci say yéeru tax nga mën ko ndax wóoru boo xam dina rëccam déet wala yaqtulu du rey fii ci jàkk xam ne kon aw tooñ wala bur xoofan du caageen a fel maanaam dañuy aaye jàkk mi dafa rey aw tooñ mbaa aw fel tooñ nag moom moo gën a diis ndax daa ëpp deret am na sax boo fa dee bàyyi jënd mbar ma cee des boo ko rawee ba noppi day araam ndax moo bim teel moomu sobe la wa urxasa wala ma leef na fii ma biit lu xurabaa yi ci panaanam doxandéen ya fii masaajid baadiya ci jàkk àll ya nee na boo demee ci dëkki àll yi dafa doxandéen nga xam ne foofu naan day jafe ndax di jël du am lu mel ne hôtel mbaa ñu bay léegi di fay du am léegi ci néegi àll yi kon doom ci kër dëkki àll yi kon nee na daañu la may ñu fanaan ci jàkk ja ñu wax ne bu dee dëkki taax nag moom te nga xam ne am na fi mu mën a fanaan fay te am nga loo fay boole ci kon yow doo sañ fanaan ci jàkk waaye nag bu dee dëkki taax ya ba tey amut ay moyens ñu fay di ci fanaan mbaa yow amoo lañ cee fay ba tey ñu may la nga fanaan ci jàkk ji ndax ngànt rek la wala yow dox yi bu yàlla ay yaqar amu jàng fil xamaam ci baytu xamaam inal ayat ndara ay laaya al yasirati bi aju néew nee na nag lu mel ne xeet boobu sangukaay yi mooy baytu xamaam ak fépp foo xam ne rek jàpp na ni sutut boo fa nekkee bu jàng alxuraan mbaa boog na nga jàng ay laay yu ñëw néeñoo ko rek waaye doo fa mën a jàng lu bari moo tax mu teg ci walaa yokk sibiti du ko baril bu waqara yi dana sañu jàng arraaki bi aju war wala mabrutaj bi ak aju tëdd wala maashi ak aju dox min xariyatin bàyyi ko ci dëkk ilaa xariyatin jëm ci dëkk jàng alxuraan bi nee na sopp nañ ko lool saa yu nekk rek mën nga boo waree di jàng mën nga boo tëggee di jàng mën nga boo dee dox bàyyi ko bi dëkk bi jëm ci dëkk bi di jàng alxuraan neexee di ko tari dina neexee di ko xool waaye kuréel bi def na si daalika loolee nii marché yi ñal ak dox ila suuf jëm ci marché ba yàlla bu fekkee da ngaa jëm ci marché ba nag moom te muy marché taax ñu wax ne lu ceeb marché taax bi day am ay solo ci yoon wi ak bari ñu ngay rommanteel ba nga xam doo mën a seetantal sama xel bu mën a jàpp li ngay jàng kon dañuy sit moom nga jëm ci marché bi noppi di jàng mais nag kon bu fekkoon ne marché àll ba la nga aw ci yoon yoon bi féex te set kon moom mën nga jàng te su ko sit waxat ci wax na ina zalika naka lolé li mu taalim ñal aji xam wasim aji dagan la am ñu sax bo be jëm ci marché ba waye fekk na da ngay jang jangum xam lu melni ko bëgg mako alquran kon yow da ngay ñu sax sip ke waxu jëm nañ ko bo yow mën nga jang jëm ci marché ba tees ko sip desu ko sip ومن قرأ كبان القرآن القرآن في سبح جرم ياري بدي من جرم ياري بدي بتي جلا فذلك لولي حسن أجر في الله والتبهم واي دق دق لبه مع قلة القراءة جرم ياري فن بدي أك بتي جلا نكون لول باحنا من nga def ko ay subahu def ko juróom ñaari xaaj bis bi nga wàcce benn loolu baax na waaye daal nee na di ko tey lu baax da nga mën nga caa xam dara di jéem sa xam di yokku te ngay bañ a jàng lu bari loolu gën surtout ndax li moo ci ëpp solo waru leen net leef na ne ànd na bi naka yonente yi alayhi salaam lam yaqra ba su ko wàcce ba su ko jàng mu alquran fi aqal la ci lu yees min salaasin ci yetti guddi dina yonente bi li muy mën mën alquran nga xam ne ci loolu la ko yàlla wàcce ba su ko wàcce ci lu manqué ñetti fan ñetti fan yoo xam ne guddi bëccëg yi ci la faaw rek moom na ñetti fan kon yonent bi mësta wàcc alxuraan ak benn yoon tàmbale ci bopp mu daanu tu ñu néew néew rek na ci am ñetti fan ndax rek di ko seetantale ko bëgg yàlla yokk yokk ci ak xam alxuraan xam ne kon ñu ëmb yaatu ndax ki ko wàcc ci moom te saa yu nekk ma koy jàng bëgg caa yokk xam lu leen war ويستحب دفن صوب للمسافر من أجل أن يقول موخ عند ركوبه فورمغا بسم الله ماغي واريك تري الله اللهم يبو بأنت الصاحب أن علي في السهوة التكبة والقليفة تيو تعدل في الأهل جنونيا اللهم يبو بإني نك من أهو ضدنا مسلمك يوم وأنت أي السفر كي نغ نغ تكي موي ترتري تكي وكآبة المنقلب أن يقل لولبتكم وسوء المنظر أم نياو قول في الأهل تنيا والمال أك على الجح يعني تعمل نساء وخمنا يعني ورد جندال ولا غي يك بوك بدل لو يك nga tambali tur yalla ne bismillah dal jang ñaan gi des borom yow de ya ya la japp ngay sa andale ci dem gi may dem ba nopp na yow la japp it ngay kima bayyi nga wutuma fi sa kër te lool yalla mom moma yar yep and yow nopp wut la fa nga bayyi ko ma ngi lay ñaan nak nga musal ma ci tartara tukki ak wëlbatiku wëlbatiku bu naqari wala xool di gis dara lu ñaaw ci saa kër ci sa waa kër ci sama waa kër wala ci sa alal wa yaqul dana wax arrakibu ajwar ja ida stawa ndem yemoon na xalab daabati ci kaw daaba ja ne subhanallahi tudd naa sell buur bi nga xam ne saxara tàggat na la naa ñeel lu haada lii wa ma panna te nekku na woon muqari ni na dee àttan la foo ñeel ko wa innaa te naka nun la mun xalidoona wa wëlbatiku lanu ilaa rabbanaa jëm ci sun borom neena saa yoo xam ne war nga daaba ba war gi jekk xam ne fi mu toll moom ni nga toogee jekk na sopp nañ nga wax lii sant yàlla mi nga xam ne moo la tàggatal loolee ba nga jekk ko fu la neex jëmale ko mu woyofalal la sa say mbir loolu nga sant yàlla mi la ko may wax ne ne bu fekkee day mel ne oto wala gaal da ngay wax bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurun rahimun jooju le wa tukrahu def na si at tijaaratu yaxantu ila ardil xabiyi jëm ci suufus noon ya wa baladi suudaan ak réewam ñu ñuul ña maanaam sib nañ nga bëgg alali àdduna ba tax laa tukki ci béréb boo xam ne kéefar fa ëpp doole ñu ñuul ñu wax boobu dafa fekk rek ñu ñuul ñu booba ak kéefar ëpp fa doole rek waaye bu fekkee ne foofee ñuul nag ay julli fa nekk kon dara nekku ca وقال وخن النبي يونتي عليه السلام ني السفر تكي قطعة أو دوجيت لا من الحتاب تبوان yonent bi waxan na ne tukki daa mel ne ab marché buñ daggee ci mbugal hadis ban yombi foofu moom moo yom foofu de waaye da caa tegoon ne da koy tee nangam ni ki lekk mbaa naan ak ay gàllankoor yoo xam ne nee na saa yoo xam ne fag nga saa bi na nga daal di wàññiku gaawi sa ñibbi kon koo xam ne tukki da koy gàllankoor ci def lu baax mbaa moytu safaan ba muy lu bon kooku li gën ci moom mooy moom rek muy toog bañ di dem bu demee itam kon rek saa yu aajom fajoo mu daal di gaaw wàññi ko wala yomb ak yi du ñeel antu saafira bu tukkee almaratu jigéen ja maa xëy di fii maxaramin ànd ak kudul borom araamante min xaa ci moom safara yow min tukkib ab bëccëg wala lit ak guddi faak fere toog lu ko ëpp ene jigéen nag moom sañu te jekki-jekki tukki tukki boo xam ne mat na taxub mën na tukki bu dee bëccëg mbaa mu ëpp ko te àndut ak góor goo xam ne ñi araamante ñoom ñaar araam góor goo xam ne koy jege ci askan mbaa nampaale mbaa goromaale mbam araam ko daal ku mel noonu lay war a àndal ba ñu tukki te sax du sañ a ànd akub jaambur ndax li ne woon góor sañ téyeete jigéen yoo xam ne ara daa araamante wuñ loola tax kon du sañ a ànd akub jaambur tukki moom donte sax tukki bu matul do tukki mu dégg ca illaa fi xajjil faridati ndara ci aju farata xaasatan dong fi xawli malik ci waxi malik fi rufqatin ci àndaale ma amoonat nii duñu woolu kooku indam yekkun dem nekkul ma xaadi ànd ak moom bu maxramin boromub aramante fa daalik kon loolee la xaañeel na ko aju farata bi nga xam ne mënta ñàkk dem nee na bu fekkee ne jigéen ji amatul aramante waaye am na àndandoo yoo xam ne wóor nañ leen seen diine seen coloré moom ci bopp jigéen ci bopp ñu wóolu ko moom itam waaw su boobaa kon ñàkkam araamante bi ci wàññi dara mën naa ànd ak ñooñu baabu li ëbbant la fit taxaani ji ci saafarawu wa bikri buqaa ak tudd ay mocc wa teeru ci ak gaaf